Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV la cloche de notification. ku doon laaj di allo Omar champion maa ngi lay bu ñu delloo ziar ñu ngi delloo bëgg lu bëri doole barki ci kawam di dóor rek di waaw yaa gën a xam ñuy sant yàlla bu baax waaw. Alioune Seye Alioune Seye kañ la dugg ci làmb. waaw kañ laa dugg ci bëre dóor wala kañ laa dugg ci làmb. mën na yow wax ci bëre simple sax si tu veux. waaw waaw man moom boo xoolee quatre vingt dix huit quatre vingt dix huit daal fekk na ma may commencé di yëngatu ci ci affaire affaire làmb. ci laay doog a dugg ci ay ay ay commencé di dem mbapat di commencé di entraîner nentu xam nga noonu noonu daal laa noonu noonu daal laa duggee ci làmb ay quatre vingt dix huit yooyu na ma fekk ma may yëngu may yëngu ci mbapat yi waaw Alioune est-ce que est-ce ci làmb ndax yomboon la dugg ci ci làmb nu mu demee noonu ci làmb waaw yom yomboon na yombul euh, ndax ñun fi ñu fi ñu dëkkee nii euh, maanaam kii la nu mu tuddati environnement bi dafa dafa dafa kii dafa am ay champion yu fi dëkk. muy sunu hmm. papa papa Balla Gaye père Aline Sey xam nga ay ñoom Mambu ñoom Arona Sall sunu coach hmm. xam nga sama grand frère Alam Ndaa sama grand frère Pape Konaté ñooñu xam nga ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ñu yoroon fii nii. ba pare am benn mbapat bu doon am fii mbapat bu mag. chaque année doon am mooy per Alioune Seye moo ko doon per ak père Balla. Mm-hmm. léegi ñun dañ doon dem foofu di seetaan nag buñ doon ñëw loolu moo ñu loolu moo ñu gën a poussé sax pour ñu nekk mbër. Mm-hmm. boobu ñun ñu ngi commencé di entraîner di dem ba pare di seetaan bu ñu demee ñu ñooy bo ñun ñooy bokk ci mooy boo yi nga xam ne ñooy ibbi géew yi. nekk foofu di bërentu ba ba ba ponkali ñëw. Mm-hmm. après bu ko defee ñu ñu dem toog ponkali continuer. d'accord d'accord. léegi nag xam nga loolu moo ñu gën a inspiré xam nga ñu nekk ci nekk ak suñuy mag ci koñ bi ku ci mel ni ñoom ñoom Amadou Sarr xam nga ñoom Pape Konaté ñoom Alam ñu formé suñu benn écurie bu ndaw tuddee ko écurie Gounass. d'accord xam nga am suñu benn benn benn genre kër ñu fay entraîner lool daal moom moo loolu moo moo loolu moo ñu poussé pou ñu pour ñu nekk mbër quoi. d'accord Modou Lo ak euh, Modou Saalum hmm. Saalum. Mm-hmm. ak euh, Boy Bawal. Boy Bawal. waaw Boy Bawal ak euh, Boy Bawal Boy Bawal Boy Bawal. sa dernier combat sa dernier combat kooku bëriloon du du Yanda ou bien. waaw sama sama dernier combat Yanda laa ko bëreel mais kii laa mujj bëreel la ñàkk jariñu mais ye combat bi yeggul quoi. je sais xam uh, naa xam naa stade alors ban victoire yan victoire ban victoire bu bëre mu neex la lool nga daan ko ñibbisi xam ne victoire bu la neex. waaw boobu moom su su ma koy euh, sama combat ndóof jëli na trop mais sama première com sama première sama première combat. arrêt euh, mm-hmm. grand combat sama premier grand combat. waaw. boobu moom moom moo a neex ci sama jëli yëpp ndax boobu nonu ki mu doon bëreel moo magoon ci làmb fuuf. ok yaakaar na woon. maag Baye Cheikh Baye Cheikh bu Pikine. Baye Cheikh bu Pikine. waaw. son premier grand combat mbay mbay ngeer moo ko tëggoon maa ngi ko maa ngi ko jaar wéer a wéer a wéer. Cheikh Boalo Cheikh Boalo dugg na Cheikh Boalo nee mm-hmm. quatorze quatorze victoire nga am. voilà Cheikh Boileau nee na quatorze victoire nga am quatre défaites. waaw loolu Cheikh Boileau. Cheikh Boileau kay moo gën a maîtriser affaire yi. ñu <laughs> koy gëm ah ñu koy gëm. yàlla def Modou Lo taxaw na mais yàlla def ni euh, suñu papa li Nicolas nekk euh, ci loxo yoon ñu naan yàlla mu génn ci ak jàmm kon boo leen julli ci nekk ci loxo yoon mais également euh, coronavirus bi daal di ko empêché. combat boobu ñenn ñi nee nañu pour yow personnellement kan mooy favori bi. non kuy favori ku dul Modou Lo. ñaata pour cent. Modou mooy favori de. ñaata pour cent. Modou mooy favori eh, quatre vingt pour cent. quatre vingt pour cent. waaw. Ama Baldé Ama Baldé naana ndaanaan la ndaanaan la champion la ndaanaan la mais Modou Lo tamit la champion la. Ama Baldé mën na yëngal boo waxee quatre-vingt pour si non boo boo déggee moo ko quatre-vingt quatre-vingt pour cent tekkul ne moo ko mën de ndax mën nañoo bëri sax Ama Baldé daan ko ci ay secondes. Hmm. su ma waxee loolu maanaam comme maanaam ci côté favori rek laa wax. Hmm. côté côté favori Modou Lo loolu ku ko waxee ku ko waxul Modou Lo mooy favori ci combat woowu noonu. Ama Baldé mën na koo daan ba ray ko. ndax la hmm. ndax làmb ndax làmb la rek. waaw Modou Lo Modou Lo mën na daan Ama Baldé Ama mën na ko daal mais lamb jooju Modou Lo mooy favori hmm. alors max max lan la. maxaan la xaw ma fay sa xol billahi amin alors. ndeysaan gars yi baax euh, gars yi dañoo baax. <laughs> waaw ndeysaan gars yi dañoo baax gars yi dañoo baax champion champion Lac de sa doomu ndey sa sa doomu ndey si victoire la jógee mais sa sa doomu hmm. mu jëm. waaw fi mu kay ñëpp xam nañ ko. <laughs> sama doomu sama doomu ndey maa ngi koy nuyu au wax dëgg yàlla di ko ñaanal suñu borom defal ko taw féex ak taysiir non si. Lac de Guiers mën na bëre Gris Bordeaux. moog bëri ba róom mosu ñoo ah. si combat baa ngi noonu moog moog giri ba róom mosu ñoo bëre. Hmm. pas remange euh, troisième combat moo moo moo kii moog Eumeu Sène. Hmm. wala moog Tapha Tine. waaw ah, ay combat la. te moo giri ba róor combat gënu koo ñor moo giri ba róor bëri naa ak ñëpp Lac de naa ñëpp. ñoom ñaar doogu ñoo bëriwul boo xoolee ñee ñëpp bëri te waat nañ seen biir tourné ay ñaar yoon ñett yoon mais ñoo la déggee mosu ñoo bëri mm-hmm. te ñoom ñaan ñëpp buñ doon bëri tey seen loxo yi day wax loolu njandeem la loolu combat ko rëy. buñ dañuy wax. non loolu loolu kii la. <laughs> loolu ñoom ñaar seen loxo yi amul code. seen loxo seen loxo amul code dañ koo décoder. ok loolu loolu loolu day nekk loo xamante ne lu neex neex la Alioune Seye alors euh, yaakaar naa bu coronavirus demee ak jàmm saison bi bu jeexee yow sa suspension day jeex. donc fu mu toll nii mën nañu indil avance. fu mu toll nii mën nañu avance nga nga jël. waaw euh, ku avance ma jël mais tamit benn côté damay man li ma doon dal laay bañ moo daal ma léegi ndax teel a jël avance. bon xam nga tey am na su combat yoo xam ne ci saison bi yeggugul. Hmm. tey saison bii di ñëw bu yàlla jeexale affaire yi tey balaa benn combat taxaw combat yooyu la ñuy njëkk a yeggale. tey boo fi jëlee avance nii nii mën nga jëm hmm. euh, combat wu six mois ba sept mois ba huit mois. Hmm. te ku ne xam ne ne préparation lamb dafa métti. soo xasee lekk cent franc nit rek ñu ne la. ñu ne la yaag Omar la rek dèjà combat bi taxaw na boo doon nelawee ñaari bët benn catu bët ngay nelawee di commencé di préparer ndànk-ndànk donte doo ci sóobu noonu sax mais di commencé am pression bu ndaw ndawaan léegi six mois wala sept mois nga bëgg di dund lool noonu loolu xam nga day metti daal day day metti waaw day day léegi loolu day day day day day xam nga benn day laaj wañ a yàkkamti dal ba affaire yi kii ba nga xam circuit bi muy demee bu laajee hmm. benn quatre benn combat mois wala combat trois mois bu mënta ñàkk bu mënta ñàkk combat cinq mois sax nga jël ko préparé ko. gaa yi jël six mois ci loo xamante ni man la suma waaye xam nga day metti daal. gaa yi gaa yi ñu ngi plébiscité sa combat ak Yékini Junior mais est-ce jël combat avant su Yékini Junior yow. ba mu ñoree ba mu ñoree du léegi. wallaahi ku dul Yékini sax laa wax ni naa ko affronté. ah mais Aliou Seye yëgil suñu tàng naa tàng na ay mbir de. waaye déggoo li ma la man ñu fi ñu fi bàyyi nañ leen leen jox ñu fi bàyyi nañ leen leen jox Malick Niang moomu noonu. xam nga gars yi nga fay bàyyi moom day dóore. Malick Niang moo ko jox. Malick Niang boo bëggee dégg dëgg daal sa waaye man maa ngi nekk maa ngi nekk si la ma nekk di entraîné. mais mais képp ku ma yàlla boole te mu raisonnable rek. mais mais mais Alioune Seye Alioune Seye balaa ngaa def dafa dafa am ay combat yu bëri yoo xamante tey yaa ngi wax Malick Niang mais yow sa combat yu bari dafa neex. Mhm. mais mais mais mais yow sa combat booy mi nekk Thiès nu mu tuddati booy euh, kii nu mu tuddati waa dimbali ma. kii Thiès. Mourou ah? Anta Mourou Anta. Mourou Anta Thiès loolu dafa neex ah. ama ama neex ama ama neex loolu loolu loolu ama neex moo ko teree neex. Tyson 2 Ngori nee na Tyson 2 mu ngi jógee ci. waaw ba tey yooyu yëpp ay. moo moo Goro mu ngi jógee ci victoire bu nice donc yooyu combat yi combat combat la. mais ba rek ba rek man daal sa waay làmb laa fi nekk képp koo xamante ne làmb boole ñu te wax dëgg yàlla fu mu ni bëggatuma bëggatuma combat bu yomb. Mm-hmm. sa waay nee kan waxal Alioune Samba kër Cheikh Coro Basiru Mbacke siyaar naa la <laughs> ok Alioune Seye Alioune Seye dégg na la alors Alioune Seye euh, jël sa sa sa temps bu bëri ñu remercier en tout cas di la remercier waat bu baax a sama gayen donc euh, maa ngi jégg ci coono gi aussi non gaynde yow yow <laughs> yow ñoo far on est ensemble xam nga rek waa c'est nous dans nous quoi ñu ñoo ñu ñoo bokk loo xamante mënuñu ko séddoo tamit. dëgg la. ba pare yéen da ngeen ñuy soxla ñun dañ leen di soxla te xam nga c'est normal mu demee nii war ñun war nañoo sacrifier suñuy temps di leen ci boole yéen tamit war ngeen di mm. sacrifier seen temps diñ diñ ci boole. ndax mm. dërëm bi génnoo gaal bi waa di jaajëfalaat ñëpp rek. dëgg la mais boobu ba léegi yaa ngi may dëkku ci entraînement yi nag yow moom il faut ma yóbbu la diine. dugg bu dugg ci loolu. non yow mi bul dugg ci loolu ndax gars yow saal nga leen di yóbbu di leen bënn. gis nga mu la yóbbee <laughs> gis nga sama gis nga sama sama émission la jegeer la jegeer lu doon la jegeer doon daw génn saal saal bi Morfa Morfal baal ko àq Morfal mu may baalu àq baal ko àq Morfal ñu <laughs> ngi koy